avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. Sainte TV, bienvenue chez vous. rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi seetaan seen télévision ñu ngi leen di nuyu. ñaanal sunu kilifa gi Hadj Bougane président gëm sa bopp. muy am jàmm fu mu toll rek. ñaanal ndoy Baraham sunu sëriñ Saalix ak Cheikh Abdallah sunu xarit. dañuy dem ci sunu tafsir sunu tontu. tafsir bi maa ngi woon ci. fi borom bi wax ne fasbir li xukmi rabbik ab lay àtte yàlla loo ca man la nga ca man muy muñ mu bindal la yiw ca muñ ga jeex na muñal dogalu yàlla muñal àtteem mu bindal la ca yiw point amul leneen amul leneen moo tax ki doon laaj démb ban jigéen lañ war a takk mais bu mu fàtte nag ne danaa dem ci góor jigéen it ban góor la war a sëyal loo defe danga defe damay wax jigéen ñi bàyyi leen yéen jamais waxoon naa la Ablaye soxna si ngay dugg premièrement na rafet maanaam na forme bi mat bul ne moom rafet ne mais sewaay bee ko yàq kon defoo li yonent bi wax bul ne rafet ne waaye noppi gudd defoo bi wax bul ne rafet ne waaye bët yee xóot defoo li yonent bi wax bul ne rafet ne waaye karaw gi daa gàtt defoo li yonent bi wax bul ne rafet ne waaye ndong gi daa gudd defoo li yonent bi wax déedéet na am forme bu mat sëkk li jigéen war a am yépp na daje ci moom nga xam ne dootoo xemmim benn jigéen ba mu lay jural benn bàkkaar leer na muy benn kon taara ngoog ñaareel ba na am alal wërsëg wërsëg baax na de soo joxee ba weer wi suuri amato mu uutu la ca rupture du am rupture du am lépp continuer ndax mën-mënam su dee dala koo lebal baax na su weer dee nga fay ko su dee da koo jaamoo yàlla ndax njabootam ba tey nga ñaanal ko baax na yàlla it gërëm ko mu jeex waaye na am dara rek waxuma ko am ku nay ku nay waxuma ko man na kaccan ma ci man jigéen duma defal dara lu ma koy sant may man naa ah, yàlla dogalagu ko ma nangam uutal ma nangam déedéet te soo soo uutee benn parfum jox ma ko danaa fexe ba jox la lu jënd junniy parfum Iran Ndao laa wax man waxuma kenn ku ko weddi dëgg la ku ko gëm dëgg la corona bii fi jaar corona bi sama jabar yëgu ko samay jabar yëguñu ko jamais mu ngoog Ablaye ba nee na même samay xarit yëguñu ko kenn yëgu ko ci am na ñoo xam ne bu leen neexee tudd ko bu leen neexee bañ ko wax mais ñoomit it yëguñu ko woon man noonu laa mel ndooy parce que bëgguma nga may defal dara bés buñ teqale ko sama xel dem ca loola bëgguma nga may defal dara bu ñu xuloo nga wax ma ko moo tax ma bëgg sama baat di doon poto bëgg itam sa ganaaru kenn bañ maa nen parce que su ma nenee bés bu ñu xuloo kuy boof ne ni am laay waxal day nëpp xanaa ñu baxal ko lekk ah pexe moo tax mawlaanaa rek yàlla rek yàlla rek yàlla rek lenn bokku ci yaay bokkul sëriñ bokkul baay bokkul mbindeef dara bokku ci yàlla rek kon takkal jabar ju am wërsëg te xam fi muy dugal wërsëgam man doo am wërsëg di ma ko jox bëgg ma nekk sa jabar man góor laa ba doon ba pare mënatumaa doon jigéen ci yow duma la xarab nag loo ma defal ma sant la dinaa la defal lu ko ëpp soo ko yëgee yaa xam soo jàppee ne wareef la da ngay xam nga ne du wareef lii mbaax la ak yëg ak yërmande mais du wareef wareefu sëy lii la dund bi kodd mi can gi dëkkuwaay bi li ci diggante bi di ay may yooyu dafay neex jëkkër ji mais waru ko dund bi du yàpp du ginaar noo ko manee la laax ak ceeb ak fondeeg ruy ak loo man waaw loo kodd mi du jasneer du bassin du gañilaa déedéet xartum nga man jox ko xartum can gi newuñ la nga joxe lépp un million la am nga huit cent mille avance ko deseel ko lan deux cent dëkkuwaay bi du étage